asalaamaaleykum si internet Dakar mi di gannaaw ba leen nuyoo di leen siyaaraat bu baax bu baax di am mbégte ak contentement bu baax a baax ki ngeen toogal wala ki ngeen gis ki nga xam ne mooy si fond d'écran bi kenn du ko présenté si même réew kii moo lëmbee li nga xam mooy TikTok bi moo lëmbee li nga xam ne tamit mooy arène bi mu mooy mbëru waa 442 comme ni mu koy waxee mu mooy mbër bi nga xam ne su bëree mu neex su baako mu neex su waxee mu neex ñu ñëw doxantu woon fii ba golf fas yéene waxtaan ak moom. waxtaan a moom kañ la dugg si làmb ñu koy wax ñama la ziar naa la. maa ngi leen dool ziar bu baax a baax a baax ginnaaw bu ma sant yàlla di sant samay ñaari waajur bu baax a baax surtout di sant gox bi ma dëkk muy golf mm-hmm. fii nekk ñu toog muy mbaaru alpha. surtout tamit di ñoo xamante mooy sama waa staff bu baax a baax a baax a baax di sant waa Passal bu baax a baax di sant ak Omake nga xamante moo def de incha allah. ok tey suñu bëggoon xam tey ñama euh, la ma kan mooy la ak kañ la dugg si làmb. ndax ñamala jaar na li nga xam ne mooy mbapat. waaw ah, mi ngi nii toog ñamala mooy nekk nit boo xam ne nit bu simple la nit boo xamante ne mi ngi nii toog ba maa ngi dugg si làmb 2023 ah 2023 laa dugg si làmb si làmb ji. dégg nga 2023 laa dugg si làmb yi incha allah. 2023 waaw. Ah. làmb wala si arène bi nga dugg wala daa daan nga mbapat. ndax mbapat naa. mbapat jaar naa ku si mel ne ay faaju ay jëf yor yooyu yëpp toj naa am na benn. final boo xamante ne dañoo woon nañ ko fa. Mm-hmm. yàlla def ni ma daan ko fa final jël fa ay nag mm-hmm. nag yëpp ngi fii ma toog. Mm-hmm. kon man jaar naa si mbapat doo ko dugg si arène bi incha allah. Eh, ah, ah, ki nga xam ne mooy dafa bëri mbër yu bëri saa su leen jëlee ñu ne toj nañ mbapat toj nañ lii jël nañ ay drapeau jékki-jékki arène neex na ñu jékki-jékki dugg si làmb est-ce que est-ce que ki nga xam ne mooy ñamala bokk nag zànni ñoom. non man jaar naa si mbaxul bu baax ay douze cent ñëpp weer nañ dayee mën naa samay drapeau su ma ko calculé war na mat si ay cinquante cinq drapeau ma doog a dugg si arène bi arène bi ay saa ne damay damay mottali sama sama sama yoon rek loolu kasa moo tax ma dugg si arène bi waaye moom ku ma xam-xam nga xam ma si mbapat nga ma xamee waaw incha allah tey suñ bëggoon xam ne ñamala ah, ñaata combat la bëree arène lan la ñuy wax waaw ah, man arène na maa ngi bëree deux combats laa bëree deux victoires hmm. moom laa bëree arène nationale hmm. tey gis nañ li nga xam ne mooy ñamal sa premier combat arène nan nga ko dundee. sama premier combat arène ah nekk samay entraînement di déglu sama waa staff bu ma nee defal nii ma def nii bu ma nee jaaral nii ma jaar nii loolu kese laa def ma dem arène nationale appliqué appliqué lu ma entraînement loolu dong la. ndax lu mel ne li nga xam mooy arène nationale mbër yombu fa na sa premier combat nga nar a bëre nit ñëpp tim la mais kii ñamalakat moo war a bëre tey sa waa koñ bu la top la pour euh, bërëg yi nga xam mooy sa premier combat. sama sama premier combat nag ba may dépassé suñu kër xawoon na métti trop trop waaye ba ma duggee si. stade ndox mu métti la. dama bëgg nga ñëw foofu benn par benn sa premier combat. waaw moo tax mu métti man loo nga doog dem bëri arène nationale yow si mbapat yi rek daan nekk am mbooloo bi nga gis waaye ba ma xasee ba dugg arène nationale yooyu yëpp fàtte naa ko confiance laa demee si làmb ji confiance laa bëree. Mm-hmm. Uh-huh, ba may bëree sans sans pression laa dem bëree quoi waaw. te ki nga doon bëre est ce xamoon nga ko. xamoon naa ko bu baax a baax muy Sentasi ma koy nuyu au pas au passage quoi. Mm-hmm. Sentasi naa bu baax a baax. leer ba ma duggee si làmb bi leer na ma ko kooku ma ko jàpp combat bi daa war a jeex. Mm-hmm. loolu laa jàppoon. Mm-hmm. noonu laa appliqué tamit ba ma jàppee rek combat bi daa jeex. nga pare si kooku ñu joxal li nga xam ne mooy euh, deuxième combat te sa deuxième combat tey loo ñu siy wax. Ah, sama deuxième combat tamit noonu la ñu ñëwaat ñu joxaat ma Gris numéro bi yëpp jël jël ko jox ko favori man nangu favori boobu. mais même man favori moom laa ko jox ndax la gisee stade damaa joomi dama ne waa la. ah loolu tamit am na ñëpp ñu ba ma gisee stade kenn jëmm ji moo leen di nax bu bari bari. jëmm ji moo leen nax waaye xel mi mi ngi fi bëre bi mi ngi fi doole ji mi ngi fi. est que doole ji mi ngi fi ndax yow ku gis nii xam ne carrément ah manqué nga ko doole carrément. non doole ji mi ngi fi instant man maa ay ay 700 kilos laay yëkkati de. 700 kilos 700 kilos laay hmm. bu ñu yaakaar ne aw ma doole ñu ngi nax seen bopp. barki Seydina Mohamed ku ma jël di nga xam ne lépp dëgg damay dóore. Mm. ñamala bi day dóore barki alxuraan day dóore dañ ma bàyyi xel bu baax a baax a baax. ku yaakaar ne amul doole yaa ngi nax sa bopp. nag ñamal ak ni nga toll nii nii ak arène bi moom dañu ne ko amul doole doo si dugg da am doole mën a xeex. mais ni nga gis est ce que yaa ngi fonk entraînement yi ñaata séance ngay def par jour. non instant yii nii maa ngi ah. Mm-hmm. une heure matin laay jóg. Mm-hmm. deux heures du trois heures du matin six mm-hmm. laay jóg. so yooyu yëpp maa ngi nekk si dini di di jàkkaaroo ay jasit ay jasit laay jàkkaaroo si dibi diini ku si mel ne yeew yeew ku xam-xam ni yeew dafa danger kon man man duma morom gars yi nañ ma sóoraale bu ma sóoraale naa rey ni si arène nationale bi heure bu jug di entraînement kenn du ko jog moom loolu sax maa koy njëkk a jóg si entraînement dañ ma bàyyi xel bu baax a baax. tey ñu waxtaan si diggante li nga xam ne mooy mbëri. Mhm. ndax dañoo jàpp instant yi phénomène li nga xam mooy si arène bi sa combat yaa

non bu ñu ma palee combat sa dañoo fay amul amul sens man instant dama ne si yoon maa ngi si deux combats deux victoire ñooñu seen i défaite koo xam xam ne ñoom si ay défaite lañ dëkk bu ñu bëggee ma may leen sens nañ dem def nu ma def ba pare amul ah, ñoom ma may leen sens. est pare nga pour taxawa ak ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy mooy kii euh, Bour Siteu ndax ñeme nga raag ak moom. lamb ji bu mu si duggee laa teere sama bakkan xam ne fii amatul ragal kon ma amul ku ma ragal si àdduna si si si biir lamb ji amul ku ne ne lamb ji am naa ko ma fi ragal la yaa ngi nax sa bopp ma fu ma dëkk ragal neew fi kon moom waruma ma nekkee ragal rek ma war a rendi ma ne. Uh-huh. tey nga ne uh, boo Siteu ñoom ñoom ñoom ñoom yaa la war a may sens. Uh-huh. ku si mel ne Ama Dia nga xam tey jamono ji mbër la kaamin la. Uh-huh. tey sa combat ak Ama Dia dégg ko doon dox mais yow yaa daw. non Ama Dia man ma man amoo ku may daw si làmb ji Ama Dia bu ñëwee dama koy rey. Ah, waaw yaa daw ko ma Mbacke laa la waatal ni Mbacke Serigne Béthio Thioune bu ma yaakaar bu ñëwee dama koy rendi xatir. ma. Ama Dia mbër kaamil la. Mhm. est-ce mu def waa jee passé combat bi mu passé. mbër askan wi. Mhm. tey dégg naa yàgg sa combat ak moom mais yaa daw. kon mënu ma daw Ama Dia koo xamante ni dèjà wéeru. Ama Dia nga dafa dof ay kii dof la yor instant ma ko jëlee dama koy si làmb ji ñu yóbbu ma fay 100 mètres 100 mètres xam ne xam ne 100 mètres dafa tasa nekk si yoon. ñaw la nga ne dof la yor dèjà kayitu dof bu ma ko bu ma ko jëlee léegi nii dama koy rey si arène bi gars yi yóbbu ma 100 sa 100 mètres ku xam-xam ni 100 mètres am na am na lu fa sama dama ne si yoonu. ah baax ma Ama Dia moo ñu taxaw nii di la seetaan. nga àdduna instant ñu taxaw nii ba seetaan yees waaw Ama Dia. ay tur la rek bu ñëwee dama koy rendi xatir dama koy rendi xatir ma ñamala laa tudd de bu fàttaloo ñamala. ñaa ñaa ñaa ma laa ah. mais yaa ngi dëggal sa bopp de. bu baax a baax. bu baax a baax a baax. waaw ah, gis nañ euh, ñu pare euh, Ama Dia dafa am combat. Mhm. tey promoteur li nga xam ne kon. dafa mel ni waa jàmbaar production mën nañ ko mu tëgg yoo sa combat ak Ama Dia waa jàmbaar surtout waa jàmbaar sax dañoo bëgg combat dañoo bëgg combat sama combat sax combat ñamala waa jàmbaar instant dañ koo bëgg bu baax a baax mm. ñoom ñoom dañ koo bëgg waa jàmbaar dañ koo bëgg au pas maa sama waay mi ngi noonu kon waa jàmbaar bëgg nañ sama combat bu baax a baax ñu si dox boobu ba léegi ku si mel ne Omar Kébé tamit mi ngi siy dox bu baax a baax sama komba pour ma bu rek ji combat Modou Lo Siteu mhm. tey suñ wax euh, programme mu ñamala la. Mhm. lan mooy programme. sama programme bari na bu baax a baax. sama programme entraînement de kese la. entraînement dong mooy sama programme instant yii nekk si entraînement yi loolu dong la. maanaam programme sa bu nga bëri li nga xam mooy roi des arènes. roi des arènes incha allah ma Balla Gaye dugal rabbi laala incha waa golf waa adduna lépp maa ngi leen di wax roi des arènes maa koy dugalaat biir golf sud. incha allahu rabbi sama gëm-gëm la maa koy dugalaat biir golf sud. mais damay ñëw diggante euh, roi des arènes ak empereur boo siy roi des arènes ni mu neexee roi des arènes boo ko amee rek boo ko boo ko amee nii empereur bi loolu yëpp dañ siy si roi des arènes nga wax rek bu fàttal roi des arènes axulul làmb ñëpp yaa seen roi des arènes dama koy dugal biir golf mais am na ñoo xam ne tamit kooku ki nekk roi des arènes nekk kenn ñeneen ñi seen empereur de man sama empreinte xam ne xam ne wane naa sama empreinte laaj leen ma simple bi li simple bi ngeen may laaj jof yor faaju gétt ardo ah maatam ah lingeer lépp toj bu ma duggoon fii sama sama gétt gi dama su ma la wanee sama na yi da ngay waaw sax da ngay naan li kii du ñama la ah kii du ñama la kon man du ma mbëru du ay mbëru askan man ñii du ma seen morom. tey seen ñu doon jox tey combat yi nekk sa kanam. Mhm. tey loo si wax. combat sama kanam man dèjà rek ma su ma duggee arène ñu bëgg bëre man dafa bari daa bari lool lool lool ku si nekk rek. fu mu su su ma waree bëree rek dinaa bëree yow ndax man ragal ma kenn si arène nationale ni ñu def nànk rek def tempo tempo xam ni ñamala baa ngi ñëw ku ma fekk di nga xam ne lépp dëgg la dañ def nànk rek tempo tempo par étape la quoi instant yii ñamala instant yii par étape lay jël par étape. ok par lan jël. par étape lay jël par étape Ama Dia moom nga wax nii nañ ma jox avance am dañu xool. nga Ama Dia yow. déggoon ma la ma duggee arène nationale laa teere sama bakkan mënu ma nekk ragal. Ah, ah, ndax ndax esaat ndax ndax esaat yaak Ama Dia ne nga nar a bëri est-ce que si supporter na ñëw ndax Ama Dia nee na moom du toog añ ak supporter est-ce fa dëgg yàlla laa la waate ay ceebu jën penn mbay ceebu jën law bay niin bat laay togg lekk si ba suur naan boisson lekk ay fruits bu ah banaana pomme dem arène nationale duma Ama Dia waaw ah, li ñuy wax ne mbëri de suñu amee xaalis suñu togga seen añu supporter yow d'accord ma si loolu loolu d'accord ma si loolu d'accord ma si Ama xam nga xam lan la Ama kooku dafa dof léegi dégg naa benn interview mu ne non gars yi dañuy ñëw lekk sa añ ba pare ñu daan la ñu ñu taxaw di la kooku bu waxee la nga xam kooku wax waxi dof lay wax ku nit nit nit njaay du wax loolu loolu la dèjà sarax la añ yooyu ngay joxe sarax mu taxaw di wax la kon kooku dof la. Hmm. kon kooku amul may wax am moom. mais tëkku nga Amadia nag. non Amadia kooku kooku maamu maamu daa am loo xam loo xam ne sa moo ñu moo ñu xaw a boole sa moo tax ma laaj nii sax waaye am na am na loo xam ne bu lii woon sax du ma ko laaj waaw. kon baax na en tant que nga xam mooy porte de voix te làmb yu nekk suñu kanam bëri na. Mhm. ñu tudd si li nga xam ne mooy gay Gaye ki nga xam ne mooy euh, Tapha mhm. ñaari combat mhm. ah, ñaari combat yi combat yi neex la de Balla Gaye combat revanche bu neex la combat bi daal lu muy laaj. entraînement ku si nekk respecté sa adversaire ñoom ñaar ku si nekk dem contact yi contact moo la mën a may. mais noo noo gisee état état physique ñaari mbëri. ñaari mbëri Tapha Tine de euh, bee paase euh, seen signature bi. forme boobu mu indi bu ko indee gëm naa ne boobu moo ay rëpp moo si am de. na poids boobu poids boobu du pour poids du poids du poids Tapha Tine. sa bu dee ko poids boobu la indi day arrangé Balla Gaye. ndax dañoo dégg si ay wax ndax keroog ba ñu jàkkaaroo Balla Gaye ba ngay ñëw da ngaa teg leen Tapha Tine ne ko njaxas njaxas Baye Fall laa dugal si laa dugal si biir kii. am na. ak bourgeois si biir stade bi lañ leen ko joxee quoi. Mhm. njaxas Baye Fall la ku si nekk am mën na am avantage. Mhm. bëre bi neex. Mhm. ak ku si kontaagul moom ah ku si kontaagul. ku si kontaagul yaakaar ne weñ yi ñoo lay may doole yaa ngi nax sa bopp contact bi mooy lépp. te ñu jógee si nga xam ne mooy mooy Balla Gaye Tapha Tine ñu ñëw si nga xam ne mooy Modou Lo gis na seen seen jàkkaarloo dégg nga Siteu ne su paquet biscuit suñ ko tegoon Modou Lo du si lekk du si lekk benn te la la an la nan nga gisee wax jooju. ah Modou Lo nag ah mu nga ko yeb si ay signature nii de Modou Lo ku ko xam-xam saa caay la ku mu nga ko yeb si ay signature waaye boo duggee arène nationale doo ko yab loo Lo mën na xeex mën na bëri ah mën na xeex mën na bëri mën na xeex mën na bëri lool lool te ñoom ñaar ku si mootul bu ñu changé cour coup xeex bi arrangé wu ko. ndax xeex arrangé wu arrangé ndax arrangé bu dee xeex rek Modou loo ko ko dàq Modou Lo peef po forom mooy xeex la. Modou Lo ku mu xeexal fii test test ba mu mutu dal dalay blessé Modou Lo boo seet seetaanee combat mi ñu xeexam moom dëgg ay basaar Balla Gaye saar Balla Gaye xam dañ ko xam Modou Lo doo taxaw ko xaar abi day ne pim nga dal si koom jaxase ko mu jaxasoo nga mën ko daan waaw boo ko taxawee di ko xaar bu mu calculer rek moom mu ngi lay mu ngi lay rey. Mhm. loo gis Modou Lo ba mu jëlee li nga xam mooy couronne bi dafa wëlbati ko di bëri xale yi bëri na fi presque ñaari xale daal leen te mën na seet tegaat beneen xale. te est ce que loolu tamit du ko andi jafe-jafe. loolu indi ko jafe-jafe instant yi xale yi la mën a bëre xale yi la mën a bëre. Modou Lo instant yi bu bëre wu xale yi ka lay bëre daanaka mag ñi fu mu jaar instant yi xale yi rek la mën a may leen chance ñu mën a dem. ndax bu deful loolu noonu xale yi tey see kenn du yëg fuñ fuñ toll ba léegi la ñuy toll. kon Modou Lo il fallait que mu def loolu. Mhm. tey ñu ñëwaat rek euh, li nga xam ne mooy si làmb ji. da ngay gis Modou deux derniers combats wu Modou Lo yi andiwul li nga xam ne mooy takkul dara en tant que ki nga xam ne mooy ba mu duggee si làmb yàggut deux combats nga am ak noo gisee li nga xam li nga xam ne moom la Modou Lo di def ndax tey jii mbër te dañoo bëgg mbër bu xajam. Modou Lo dafa doon xajam léegi xajamatul taq maanaam du sax taq. waaw mhm. ah, lu ko gars di di woowee yaa oustaz day ñëw andi ndoxu zamzam ak suufu mbaq ñoo bëri est-ce que d'accord si lool no Modou Lo di def. non loolu d'accord naa si ne Modou Lo instant yii daar daar ci gàllaajum na def. yim doon def da ko rëcc bu doon bu démb doon tey nii mu nii mu nii noonu lay yegalee ay ndoxu zam-zam ndoxu keneen lay sangoo kon mo loolu mu def noonu xam na ko waaye bagage yaa ngi <laughs> que di nga jël di nga jël boobu boobu xalaatu ma ko sama adduna en tant que nekk mbër bu ndaw xalaatu ma ko non jamais la vie loolu du ma ko digal nit. waaw maa loolu. ko digal nit. ko digal nit benn mbër bu ndaw du ma ko digal mënuloo instant yii nii si fin la nekk bu ko neexee def loolu. waaye ba mu siy toll dëgg dana takk ba fee tell waaye bi ko neexee def loolu waaye man su ma tollee côté boobu naa ko def waaye instant tolloo gu ma si. mais dañ bëgg a xam sa dernier mot ak looy looy wax ñu ne ñu ne lay seetaan. waaye ñi may seetaan. waaye ñi may seetaan tey si maa ngi leen di ziar bu baax di leen wax ni ñama laa ngi nii ngeen gën a jàpp incha allah rabi jàppale ñama di woon surtout nag ñu may jàppale bu baax a baax a baax ku si mel ni PAM ñaa kooku day jàpp samay combat bu baax a baax su mel ne ah ñoom waa waa yi mm-hmm. ay ñoom ay ñoom paada aw ma seen fay bu baax dañuy jàpp si combat bu baax ay ñoom grand bara aw ma seen fay ñoom dañuy jàpp samay combat bu baax a baax a ah ay ñoom saxin ndaw ah désert aw ma seen fay ñom jooja ndaw aw ma seen fay bu baax Omar Dramé ah ay ñoom grand bàcc aw ma seen fay dañuy jàpp si combat baax sama ah ay ñoom maalo pikil nga xam ne maalo pikil sama seexu yàlla boobu aw ma fayam day jàpp sama komba bu baax a baax joojo borow aw ma fayam ay ñoom tom aw ma seen fay. dégg naa Ibro du jàpp ko combat. non Ibro naa ko ko kooku kooku borom baal kooku day jàpp. dégg naa du jàpp sa combat de. non day jàpp sama combat baax bu ma jaxasee Ibro waaye. Ibro ndax fi nga dem soirée am ma daa mu yéegu ma mi sama. ma wóor nga da nga dem soirée am yéegoo te yaayee mbiru 4-4-2. non non te 4-4-2 ku ko Ibro naa ak ñoom Ibro Kebe ak ñoom Khalifa non boobu nag maa bëgg moo yëg quoi. boo ma yëg kay ndax maa gis naa la. non bëgg moo yëg daa am lu tax. yëg wóo oh, wóo ma ñamal maa wax ak yow ndax dañoo gars yi téye la. non non non boobu abu ah, moo yëg daa am lu tax quoi sama tànk dana. dana sama tànk dana mer sax boobu sol ma woon daal quoi moo tax bëgg ma woon yëg. waaye dimanche incha allah nañ ma xaar. maay hmm. toj five incha allah maa toj fay bu baax a baax waa poori na aw ma seen fay bu baax a baax dañuy jàpp si combat yi bu baax a baax ca bureau yëpp nag ah bureau yëpp ñi nga xam ne ñu jël seen i dërëm seen i ñaar dërëm di ma jox su ma limee rek damay jur ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax dina di wax ni gis naa seen taxawaay bu baax surtout nag sama combat di woo waa mool 8 bu baax waa mool 2 ah waa mool 4 waa mool 3 waa trésor waa mais ah aw ma seen fay bu baax a baax a baax ñoom ñëpp dañuy jàpp samay combat ca ca gi nekk carte C ay ñoom Amet ñoom Mas ñoom Da ñoom iyaan ah ñooñu aw ma seen fay ñoom jéeri ñooñu aw ma seen fay ba sa jour dañuy ja sonn samay combat ku su mel ne waa Santos waa Santos aw ma seen fay waa Taïba aw ma seen fay ah waa golf si kaw ah aw ma seen fay waa ma mafia golf bi waa ah ñoom ñëpp aw ma seen fay ku mel ne sama waa estaf ah ay ñoom grand gueye fet-fet ma seen fay zan aw ma ku si mel ne Diaz Ahmed Pate Diop ah Cheikh Mar sa sa Touba aw ma fayam bu baax a baax jibi aw ma fayam ah ñoom maa ngi leen di woo sama combat ba dañ siy jàpp bu baax a baax a baax ay ñoom bari njaay ah ay ñoom jos aw ma sen fay sama njaago or boobu ah, aw ma seen fay ma fi yaa njaago bi nag ah ñoom ñi ñoom ñëpp nag aw ma seen fay barke rasulullah ah ay ñoom Ilias ñoom Bécco ñooñu aw ma seen ah. na ah, trop faa ma nuyoo man nitu dëkk bi la. aw ma seen fay ah arrêt grand gueye tamit arrêt grand gueye aw ma seen fay barki seen naa ma ay ñoom pa malal ñooñu dañuy jàpp sama combat père alpha aw ma seen aw ma fayam ñoom ñëpp ah dañuy jàpp samay combat bu baax a baax a baax incha allah mhm. tey comme lu des si émission bi bëreetul en tant que nga xam mooy citoyen en tant que li nga xam mooy citoyen mhm. mhm. tey noo gisee ni nga xam mooy dëkk bi a ah, dëkk bi nu ma ko gisee man président bees bi président ma kooku du ma wax si ay waxam na tax non du ma wax si dañ leen laaj en tant que en tant que porte de voix. Mhm. tey noo gisee euh, li nga xam mooy mooy mooy réew mi mën nga may wax mais am nga droit wax réew mi a réew mi ni nga doxee ak noo bëgg réew mi doxee ak tey soo soo jox tey euh, président doon wax te président pour mu jàppale jeunesse bi en tant que sa voix tamit mu nga mën nga jaale loolu. waa jeunesse bi nag fa dëgg yàlla lu may lu may wax président na bàyyi ceg gi bu bëggee am jàmm càq-càq yi na leen bàyyi te càq-càq yi ñoo ko fal de saalum saalum yi muy génne jakataa maan yi ñoom ñoo ko fal dañoo sonn jakataa maan ni ñuy xeex ni xam nañ ko bu baax a baax président jakataa maan dañ laa xeexal ba sonn di reyante nax yow ba nga jël réew mi nga bëgg leen fay jëlee loolu d'accord ma si na leen bàyyi ah ambilaay ah waa Colobane waa Sandaga ah waa Thiaroye ambilaay fépp fu ñuy nekk si marché yi na leen bàyyi ñu liggéey ndax ñooñu ñoo ko fi teg de bu dëgg neexee rek ñooñu ñoo ko fi teg na fi bàyyi gars yi dañuy dàqante ci mille francs deux deux cent deux cent deux cent et cent francs cent francs dañuy dàqante fa jëlee ñoom gars yi dañoo yor ay njaboot na ñu liggéey loolu kese la kon ñoom la ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax de am mbégte ak contentement bu baax a baax baax mhm. bis ni ki tey bàyyi naa Amadia maa ngi si ñamal <laughs> waaw li ñamala lee mooy sama mbër xanaa ñu jox dig daje ba beneen yoon waaw su amantee combat si diggante bi mhm. ñu jël la émission incha allah rabbi amul benn problème dinañ leen xaar bu baax bu ñu amantee combat dinañ ko yëg pour nga ñëw dafa ñu interview incha allah ndax ndax yaay mbër 4-4-2 te man 4-4-2 fa laa Ibra Naay maa ngi koy bu baax a baax sama combat dafay jàpp bu baax a baax a si est-ce que na si jàpp bu baax Ibra Sow sama nit la kooku nit la kooku si jàpp bu baax a baax a baax sa yaag sa relation li nga xam ne moom Ibro tey yaag sa relation yaag Ibro Ibro depuis bongo la depuis bongo boobu nga xam ne nekkagul dara muy bongo di ànd ak jibi gisee ma leen di topp depuis boobu la boobu nga xam ne maa ngi dem toog topp tëggkat yi tëggkat yi laa am topp ba yàlla def ni Ibro Naajo ba ci muy def ay soirée ay tropique yooyu yëpp maa ngi fa woon ba démb doon tey kon faa mu fàttali ko démb loolu kese la moo tax mu nekk sama waay. Mhm. kon ñoo ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a ok merci beaucoup. a ñu ngi leen di leen jox dig daje ba beneen yoon ki ñu toogaloon mooy ñamala kenn du ko présenté si mim réew waaw di leen jox dig daje di ziaraat ñëpp rek a ku lim juum wasalaam.